mbokk yi ak xarit yi li modu ba léegi euh, président Macky Sall xaw ma lu tax xamu Modou ci lu mu ne waaye dafa mel ni tegaluma benn yoon li nga xam ni mooy photo xaw ma dafa am ci lu mu ne wala déedéet parce que Modou il faut nga koy ba max di ko def comme ni ko son yi bu di def pour mu di la defal li nga xamante ni moom nga bëgg waaye boo bëggee taxaw ne da ngay professionnel Modou moom it day nekk ca la ko neex waaye xam nga ni diirëb may wax tegaluma président Macky Sall ngir kii ñëw xam ni président Macky Sall laay wax ci li nga xam ni moom la doon wax mbokk yi dañuy delluwaat encore une fa ci kàddu yi nga xam ni président de la république yëkkati na ko jëmale ko ci ki nga xam ni moom lay wax Barthélemy Diaz ci ndaje mi nga xam ni amoon na muy forum bi nga xam ni amoon na ca Grand Théâtre Barthélemy Diaz daje fa ak président de la république coow li ne kur li tax coow li ne kur dafa am lu bari loo xam ni nit ñi yaakaaruñu ko woon fooguñu woon ni war na mën a ne mu ne li nga xam ni sénégalais yi yaakaaroon nañ ñi warta mën a ne mooy Barthélemy ak président Macky Sall ñu jàkkaarloo président Macky Sall di wax Barthélemy di ree président di lee loolu lañ jàppoon ni mënta ne et pourtant nekk na li doy waar ci jamono ji nekk ni moo tax may wax politiciens yi war nañu moytu bu baax a baax parce que dafa am loo wax politique boo xam ni sénégalais yi bëgguñu ko la xewoon démb ak bërki démb sénégalais yi bëggatuñu ko sénégalais yi dañu bëgg politique boo xamante ne bi politique bu sincère la sénégalais yi dañu bëgg politique boo xamante ni bi bu wuuteeg nañ daan gis senegal dañu bëgg politique boo xamante ni bi bëggatuñ ñu wax ni ñëpp a yem dañu bëgg politique boo xamante ni bi dañu bëgg ñu xam ni am na ñuy doxalee nii waaye am na ñuy doxalee nee li tax mu naqari ñu bari ñoo xamante ni bi gis nañ Barthélemy lii xew xew man jàpp naa ni li déranger sénégalais yu bari sax du bu ki nga xam ni moom la ñuy tuddee euh, ñoom Habib si ak ki nga xam ni mooy xalifa Sall mais li gën a naqari nit ñi mooy bu Barthélemy parce que am na ñu bari dañ doon wax ni Khalifa li tax mu ne fi mu ne ba nëga ni Barthélemy la mais bu Barthélemy changé woon veste xalifa dana ko topp ñu bari dañ doon wax loolu président Macky Sall bu ma ko mënee wax ci wàllu politique démb daf leen a boole ñoom ñëpp dal di leen di def li ñuy tuddee paqueté maanaam daf leen a karawaase bu ma mënee utiliser mot boobu parce que li mu bëgg am na ko doxalee na ko comme ni nga xamante ni bi noonu la ko amee te ñoom amuñu li nga xam ni moom lañ bëgg liñ ñu doon wax bokk nañu ñoom moom lañ bëgg parce doxe na coup boo xam ne tey bu ma doon wax ne dañ doon damyee damay wax ni président de la république dame na leen dox na pion boo xamante ni bi daf leen a dame et pourtant loolu jàppoon naa ni mënta ne parce que dama gis Barthélemy ci bi nga xamante ni bi Papa ngay njaay invité na ko di ko wax toog ak Macky Sall mu ne bugguta toog ak Macky Sall ni mu ko waxee nekkul wax ji kese parce que bëgguma toog ak Macky Sall d'accord nit ñi mën nañ ko wax mais façon bi mu ko waxee maanaam dafa wax ni buggut a toog ak Macky Sall yemut sax ci bañ a toog ak Macky Sall mais maanaam ki koy wax Papa Ngagne Ndiaye mi ko doon wax naan ko Barthélemy toog ak Macky sàll nangu wuta sax xool Papa Ngagne maanaam moom Papa Ngagne Ndiaye miy génn kii bi nekk intermédiaire sax bëggatu koo xool et pourtant Barthélemy moom ci jëmmi boppam loolu nga xamante ni bi moom la wane woon mu dégager ci xar kanamam loolu la nit ñi capté loolu mooy li nga xamante ne bi moo nekkoon ci nit ñi nit ñi bañu ñu jàppanaa pour mu gisanteeg président de la république ci circonstances yu mel nii parce que mën nañu teg jëmmi nit ki mais dafa am lu feeñ ci Barthélemy loo xam ni ñu bari fooguñu ko woon ci moom maanaam boo xoolee dikk gi nga xam ne moom la président Macky Sall dikk man dama ci gis ni ci sama gis-gis peut-être mën naa trompé wu mais dama ci gis ni Barthélemy euh, dafa am signe faiblesse yoo xam ni dama ko gis ci moom maanaam mu faible envers président Macky Sall ci bi président waxee ne ko euh, Barthélemy tu as bien travaillé maanaam foofu dafa mel ni ku perdre contrôle maanaam mënatul a téye boppam ndax séentuwutoon li nga xam ni moom la ko président wax président bi mu dóoree coup boobu xam ni dal na ci la ñëw encore def ko ci côté humour daal ne ko comme disait l'autre je vais dire à ton père bien travaillé loolu yëpp séduction la boo xam ni daf ko def uniquement ngir am image boo xamante ni bii moom la soxla te am na ko te it ni nga xam ne noonu la salle bi yëngatoo donc xam na publicam public bi fa nekkoon xam na li leen di yëngal mu jox leen li nga xam ni moom lañ soxla ñu delloo ko li nga xamante ni bii ñoom moom it moom la bëggoon ci jamono jooju kon damay wax ni président dox na ci kaw Barthélemy man jàpp naa ni wan na ko ne ko politicien bu ndaw nga lii nag daf lay dellu ci Ablaye Wade li mu defoon sa Seck ci 2007 avant élection ya mooy bi Ablaye Wade fexee ba ki nga xamante ni kii mooy Idrissa Seck dugg palais génn loolu rek mooy li Ablaye Wade soxla woon ci moom président Macky Sall tamit bi mu ñëwee li mu soxla ci Barthélemy am na ko parce que Barth recevoir na ko waaye am na ci ndaje mi loo xamante ni bii tey bi ñu xëyee journaux yëpp moom lañ bind kon cela veut dire que président démb am na lu rëy loo xamante ni bii euh, def na ko ba ci li nga xamante ni mooy jiixi jaaxa gi nga xam ni moom la nit ñëpp di jiixi jaaxa ci wàll wi nga xamante ni bii moom la def ñuy wax ni mi ngi bëgg a isoler Ousmane Sonko pour écarter ko président nag foofu man dama jàpp ni euh, bu fekkente ni dañ la ko xelal nga jàpp ni euh, mën nga isoler Ousmane Sonko euh, jàpp naa ni loolu mënul ne maanaam nga daal di fexe ba Ousmane Sonko wéet munul wéet parce que bu ma la doon wax tey Ousmane Sonko di la wax ne la mooy kan dama lay wax ne la daanaka mën nañu wax ne Ousmane Sonko mooy Sénégal pour écarter ko dafa mel ni dafa ngay ñëw pour pousse Sénégal parce que. ñi ëpp ci sénégalais yi boo defee sondal sax xam ni moom lañ jox bopp li ëpp ci sénégalais parce que loolu mooy li nga xam ni mooy mooy li leer parce que ñii ci moom lañ doon nàmpee ñi nga xamante ni bi tey ñoom ñoo Barthélemy ay ñoom ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy ñoom Khalifa Sall ñooñu ñëpp tey parce que Ousmane Sonko dem na ba toll foo xam ni ci wàllu politique gu réew mi que ni mën na wax fal leen diw ñu fal diw loolu sunu borom may na ko ko parce que essayé ngeen ko te def na ko donc jéggi na li nga xam ni mooy mbir moom parce que defoon nañ ni bu fekkante ni bi législative yi ko Sonko bokkul listam demul laa mën na bañ a demee neen mais bi listam demul ñu daal di jël suppléants yi jiital leen mu génn moom doon xar kanam gi wax ni nga xam ne noonu la nit ñi war a doxalee résultat bu musta am am na ci assemblée nationale kon xam nga ni waa ji ci jëmmi boppam. kenn mënu koo isole te wax na ko avant li nga xam ne mooy mbir yi parce que nee na kenn mënu maa isolé parce que maa ngi ak peuple bi te ku nekk ak peuple bi kenn mënula isole donc defe naa ni ñoom ñooy xëcc di isole seen bopp ak ñi nga xamante ni bi tey jàpp naa parce que am na ñu bari ñoo xam ni safoon nañ dara mais xoolal bi nga xamante ni bi wàcc nañ fa Ousmane Sonko wala ñu wàcc fa kii bi ànd ak nguur ana nan lañ doxalee kon je pense que ñoom Barthélemy ak ñi nga xamante ni bii eh, ñooy ñoom xalifa sàll ak eh, ñoom Habib Sy démb moom defe naa ni président def na leen ko waaye bu fekkee ne président nag dafa jàpp ni caxabal boobu baax na ci Ousmane Sonko jàpp naa ni kon mi ngi nax boppam parce que eh, bokkul voilà.